daanaka li yëkkati woon waxtaan bi sax leer na mooy fu Seydina Cheikh jële tariqa bi ci gis yonent bi rek daanaka ci la loolu lépp leere loolu nag yàlla def na ko moo tax benn borom xam-xam dafa wax muy Muhammadul al Mashri mooy borom jaami' téere bi topp ci Jawahirul Maani daf ni lii ñuy wax karaama wala boog secret mbóot dafay am ñoo xamante ni yàlla da leen di wërsëgaleel buñ ko déggee seen xol nangu ko kooku ku ko doon rek xamal ni kooku ca mbir ma la bokk am ñoo xamante ni yàlla day def buñ ko déggee rek seen xol yàbbi ko kooku nag xolam du ca kontaan bu ko déggee xamal ni kooku bokkul ca mbir ma maanaam yàlla naru ko caa boole Seydina Cheikh ci ay waxam bari na fu mu wax ni tariqa bi ñu ngi ko jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga wax na ni axadna an mashayixa idda falam yaqdi allahu minhum bi taxsili almaqsuud wa innama sanaduna wa ustaazuna fi hada altariqi huwa sayyidu lwujudi sallallahu alayhi wa sallam wa qad qada allahu bi fatxina wa wusulina alay ala yadayhi laysa li gayrihi min assuyuuxi fiina tasarrufun nee na jël naa ci ay sëriñ yu bari te yàlla dogalul ci ñoom ñu am la leen taxoon a jóg maanaam gis yonent bi mu jox leen mbir ma mu ni nag ñun suñu sanad wa innama sanaduna maanaam suñu silsila ci tariqa bi silsila nag su ma la ko bëggee leeralal mooy maa jële ci diw diw jële ci diw diw jële ci diw ba mu àgg ci Seydina Cheikh wala ba mu àgg ci yonent ba lu jara fonk la nag lu jara fonk la te jaadu na bépp muqaddam muy leeral silsilaam di ko wax wax ko mu leer naññ ñépp xam koo jële ba koy jël ci werd xam silsilaam soo demee fee ci Fass Cherif Zubayr bi fa nekk su la joxee tariqa bi da lay jox sa silsila daf koy bind dafay dafa lay bindal da lay jox sa fooy silsila ni la man ci diw laa jële ci diw laa jële ci diw laa jële ci diw laa jële ci diw laa jële ba jox la ko mu jële ci Seydina Cheikh nga xam ni yow mii sa silsila kii la andiw andiw andiw ba ci Seydina Cheikh bu du woon lii nag silsila ku nekk sos lu la neex comme Abdullah ibnu Mubarak wax nee na bu du woon silsila lu neex waaye waxal yonent bi nee na bu du woon silsila la xaala man saa ma saa moo tax ñu naan jullit war naa moytu xaala nabiyu lu dul ni damaa jële ci du damaa jële ci damaa jële ci ba mu àgg ci yonent ba wala yaqulu muslimun qaala nabi bila riwayatin li xawfi lkadibi jullit du ni yonent bi nee na te amul silsila na ko moytu ndax moytoo feneen yonent bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man kadaba alayya mutaamidan falyatabawa maqaadahu min annaar képp ku ma fenal te yaa ko tey na na préparé sa wara léegi nag ay léeg-léeg ñu joxe werd bi ki la ko jox bul xam fu mu jële te loolu diisut nit ki boo ko joxee werd nee ko diw ci diw laa ko jële jële ko ci diw jële ko ci diw jële ci ko ci diw ma jox la ko mu xam fu muy teg tànkam mu xam ni moom silsilaam bi mucc na ayib amul kenn kun ciy jàpp mais bu fekkente ni silsila bi am na kun ciy sikki sàkka ah bu boobaa nag laa mbir day daal di am moo tax ñiy joxe tariqa bi dañu war di joxe seen silsila waaw dañoo war di joxe seen silsila Sénégal nag yu bari dañ koy dañ koy rëyal yu bari dañ koy rëyal mais Seydina Cheikh ci boppam moom dafa wax silsilaam nee na nee na sanaduna fi l wirdil maaluumi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ñi may laaj sama silsila yonentu bi moo ma jox ah Seydina Cheikh ku ko gën a màgg ci tarixa bi te moom dafa wax silsila pourquoi pas ñun mënuñu wax suñu silsila ni la diwa ma jox diwa ma jox diwa ma jox nee na bu dee wérde bi moom yonentu bee ma ko jox nee na nag wa amal musabbiat comme ça mu ni yeneen wérde yi comme musabbiatul ashra ab wérde la fa axadnaaha musaafahatan an cheikhina cheikh mahmoudi al kurdi al misri radiallahu anhu wa huwa axadaha an il xadri musaafahatan an il xadri musaafahatan mu ni nee na musabbiatul ashra dañ jële na maa ngi ko jëlee ci ci ci ci muhammadunil kurdi musaafahatan waaw ma taxaw mu wax mu wax mu wax mu jox ma ko moom mi ngi ko jëlee ci sayduna xadar mi nga xamante ni moo doon jàngal Moussa moom tamit da ko cee jël musaafahatan kon kay ñun ñeneen ñi dañ dañu wax silsila yi loolu loolu lu ci baax la leeralal taalibe bi foofu lu ko jokkaleeg sayduna cheikh am na solo trop ñu leeral taalibe bi lu ko jokkaleeg sayduna cheikh Seex Alxaaji Malik de wax na ko moom silsila nee na wa sanadi fii wirdina tijaani mu bidd ahli xadrati tadaani sayiduna xaali an cheikhi omar an sayidi mohamad il gaali l abar an tijaani an rasul salla alayhi xaaliqul asil moom leeral na silsilaam de nee na ki may laaj foo jëlee werde bi maa ngi ko jëlee ci sama nijaay sama nijaay jëlee ci Seex Alxaaji Omar Seex Alxaaji Omar jëlee ci Mohamadul Gaali Mohamadul Gaali jëlee ci Seydina Cheikh Seydina Cheikh jëlee ci yonent bi li mooy silsila silsila si alxaaji Maalik te yomb naa leeral bu dee koo xamante ni Sénégal la jële werd bi daanaka ñaar rek imaamu jële ci silsilaam jokk ci si alxaaji Omar wala mu jokk ci Abdou Karim Alfouta Jaloni mu ñoo ko Abdou Karim Gaye Alfouta Jaloni ñaar ñii ku jël Sénégal werd bi ku ko jële Sénégal xam nga nag ku génn jële ko feneen ci tukki mais boo ko jëlee Sénégal sa silsila boo ko toppee ci ñaar ñi lay dellu bu fekkente ni waa Kaolack la waa kër maam Abdallahi Niass ñoom seen silsila mi ngi jóge ci Seex Alxaaji Omar ndax Seex Alxaaji Omar am na am na ko ñuy wax Ibrahima Ibrahima Cellel Ibrahima Cellel moo jox maam Abdallahi Niass maam Abdallahi Niass moo jox ñi ci des ci moo jox ay doom moo jox maam Baay moo jox maam Xalifa ak ñooñu waaye Ibrahima Cellel moomu moo jox maam maam Abdallah maam Abdallah kii Ibrahima Cellel moomu yaakaar naa moom moo jëlee ci Seex Alxaaji Omar wala kenn dox na fi wala am na ko dox ci diggante bi su ma juumul waaye ka dox ci ka ko jox Seex Alxaaji Omar a ko jox seen silsila leer na naññ. amul benn coow bu dee Seex Alxaaji Malik wax na ko nee na maam Alfa ma jox maam Alfa Seex Alxaaji Omar ko jox Seex Alxaaji Omar Mouhamadul Ghali ko jox Mouhamadul Ghali Seydina Cheikh Tidiane ko jox Cheikh Tidiane yonent bi ko jox sallallahu alayhi wa sallam bu fekkente ni waa taaleen yi ñu naan omariyeen loolu leer na ñoom ci Seex Alxaaji Omar lan jële tout court bu fekkente ni maam Omari Ndak Seck kooku rek moom moo jëlewul ci Seex Alxaaji Omar ci Sénégal moom jëlewul ci Seex Alxaaji Omar parce que moom yàgg na bu jamono teewul ak Seex Alxaaji Omar tamit moom moo ko wala moo ko jiitu parce que moom jamonoy Maba Jaxu Ba la moom mi ngi jëlee ci Abdou Karim Alfouta Jaloni ci Abdou Karim Gaye boobu Alfouta Jaloni ci la jële werd bi simple na soo jëlee tariqa bi waxal nit ki fi nga ko jëlee parce que silsila dañ ko war a leeral nit ki xam kan mooy silsila xam ñaata ñoo dox digganteem ak Seydina Cheikh parce que parce que ñi nga xamante ni dañuy soloo xadis sax dañ koy leeral ñoom buñ la waxee ñu ni la an diw an diw an diw comme Malik an Abdullah ibn Omar Malik an Naafi an Abdullah ibn Omar an rasul an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lii lu am solo la loolu nag do doomu ñiy joxe werd bi ñoom ñoo ci war a bàyyi xel di ko leeral parce que nit ki rëy na torop mu xam li ko jokk ci mbir mi parce que farata la Seydina Cheikh daf koy leeral danaan sanadi an sanadi an an sayyidil wujud yonentu bee ma jox nga gis ñeneen ñi tamit ni la sanad yi mag ñëpp dañuy leeral seen silsila lu tax nag boo joxee taalibe doo ko wax sa silsila moo tax xam ki la jokk ci Seydina Cheikh kon lu am solo la parce que dina tax nit ki wóolu nag fi mu jële werd bi li rek lañu leen bëggoon a leeralal su ko defee nag bu ñu xamee lii mooy lan ba pare ñu dog laa nag indil détails yi ci nekk ci biir lan mooy werd bi lan mooy wazifa bi lan mooy xadaratul juma lan mooy charte yi lan moo koy wéral lan moo koy yàq waaw ndax waxan nañ leen ca jotaay bële paase lan lan mooy dugal nit ci tariqa bi ak lan moo ko ciy génne waaw moo tax ku ko jël te jëlee ko nii ah su ko defee ngëneel yi ci nekk yépp dana la ci fekk dana agsi ci yow comme comme axizuhu sukunaahu illiyuuna fi jawaari fi jiwaari sayidi alwujudi almusharrafi wa yaxfiru allahu lahu alkabaira min danbihi wa yaxfiru alsaxaira wattaabiaati min xazaini almajid waaw maanaam tariqa bi ngëneel yu bari moo ci am loolu dinañ ko jagleel waxtaan boo xamante ni ngëneelu tariqa bi rek lay doon ndax nit ñi xam ko parce que nag kat julli ci yonent bi suba ak ngoon ku ni la ngëneel nekku ci daf laa bëgg a xañ àjjana waaw ku ni la ngëneel nekku ci rek da laa bëgg a xañ xañ àjjana parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ku julli ci man benn ma digal yàlla julli ci moom fukk digal malaaka yépp mu julli ci yow fukk malaaka yi ñoo ëpp nit ñi fuuf nit ku nekk li ko topp ci malaaka mat na ay sett wala mu ëpp ko am na kuy bind lu baax am na kuy bind lu bon am na malaaka moo xamante ni moom la ñu dénk ruxamu doomu aadama ak malaaka nàng malaaka yërmane malaaka mbugal kenn xam kenn xamul ñaata malaaka moo topp ci yow bu ko nekk jullee ci yow nga tooy xip ak julli te julli ci yonent bi ku tooy xip ak julli ci yonent bi sa àjjana leer na koo yóbbaale kay ngay wër waaye yow moom dem nga kon gëneel yooyu bu la ko kenn xañ soo xoolee ñi nga xamante ni julli wuñ ci kii jëluñu tariqa ak ñi ko jël bokkuñu li ñu julli ci yonent bi ak ñee bokkuñu jamais loolu moom amul werante ku nekk sa sa sa bopp doy na la ci misaal defal rek comparaison ba nga jëlee tariqa bi ak bi nga ko jëlagul nga xool ñaar yooyu ba ban nga ci ëpp loo julli ci yonent bi parce que nit ñi nit benn jaamu la am boo xamante ni amul sikki sàkk ni yàlla kese tax ak dara du ci dugg ci rëy wala leneen mooy julli ci yonent bi ak zikar yooyu moom dara raxu ci lu dul yàlla julli ci yonent bi yàlla rek amul lenn leneen lu ca dugg parce que amul benn bénéfice lu dul mbiru yàlla niki noonu tamit zikkar kon moo tax buñ la ciy wax ci tarixa bi naan la ki ko jël illi yu lay dëkke ñu naan ah loolu di ko weddi ñàkk xam la rek parce que da nga koy liggéey da nga koy liggéey ci tarixa bi jamono ji nga xamante ni àdduna bi dafa tas ñëpp yàqu kenn talatul sax julli juróom yi bay wax julli ci yonent bi yow nga julli juróom yi di julli ci yonent bi di war rek wasifa ak def yeneen kooku kay buñ la ne da ngay dëkk illi yun nga war ko mën a gëm ndax amul kuy liggéeyal yàlla ci kaw suuf ku kaweeb tijaan ci julli ci yonent bi ak respecté diine tijaan boo xamante ni nag def na li ñu digle laa wax waaye waxuma koo xamante ni dafa yor tijaanu làmmañ mooy bu rojo génnee kenn du ko ci ëpp làmmañ bu riir amee kenn du ko ci ëpple déedéet tijaan boo xamante ni day pratiquer tijaan yi comme na mu ware laa wax di jullee julli juróomi ca jàkka ja di def ay xisibi alquraanam di def ay zikram ay awraanam ay haylalaam yooyu yëpp mu di ko def kooku chaque jour li muy yor ci yiw moom ëpp na ko mën na cee dugal ñeneen loolu rek la waaw yàlla moo moo may nit ëllëg muy ràmm waaw xanaa nag kon war naa mën a may nit muy ràmm baayam ràmm doomam ràmm rakkam ràmm léppam ràmm ay sax ay ay ay fameem sax loolu du dara di ko weddi takaabur la rek ak rëy rëylu waaw kon daal ñaari tomb yooyu rek lañ bëggoon a leeral mooy wala boog benn tomb bi sax la muy sanadu werd wi maanaam werd wi cosaanam lan la fan la jóge wax nañ leen ni ci yonent bi la jóge sallallahu alayhi wa sallam yonent bi tamit mi ngi ko jox Seydina Seex jaxaran joxu ko ci génn joxu ko ci nelaw daf ko jox yaqazatan laa manaaman sanadam tamit moom Seydina Seex mu ngi jóge kon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku jële ci Seydina Seex kon dangaa jël direct ku jële ci ku jële ci moom kenn moo dox sa diggante ak moom noonu lay demee ba silsila bi lu mu gën a gudd wala mu gën a gàtt ñu ngi leen di jégalu bu baax wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh